ñu wax ne suñu ndajam tey bi li ñu koy def mooy que ni lu normal la lu jaadu loo xamante ni démocratie ak parti boo xamante ni parti bu démocratique la ni muy doxee ñu war nañu par yenn saa yi ñuy toll di évaluer ak di njàngat situation politique yi ci loolu si la jëlee décision tey jii nii pour daje ak presse bi pour leeral ci yu bari parce que élection yi ñu jóge dafa am lu bari loo xamante ni dañu kaa Thiessois dañu kaa lancé comme message parce que bu ñu jàngatee Thiès élection yi fi jóge yépp amul benn parti opposition bu xalaat parti ak pouvoir ak koo mënti doon bu mënoon a xalaat te gagné benn biro de vote lépp Idrissa Seck moo ko daan rafle ñu ñëw élection yi passé local parti au pouvoir avec les moyens yi ñu fi def te ñu daan gis lu ëpp ci ay moyens ñu dem bay jéem a taxaw tey naan am nañu loo xamante ni gañe nañ ko Thiès ba di ndamoo loolu wëlbatiku nag ci référendum bi mu doonaat pire loolu yëpp nag am lu ko waral parce que dañu sukkandiku woon sur des un travail boo xamante ni li ko laloon dara du ci woon dëgg et ci loolu ci lañ basé woon ba def ci investiture yi loolu nag moo ñu indil tey ci biir maire yi ñu am si des équipes yoo xamante ni mën naa ñi il porte préjudice aux populations thiessoises il porte préjudice au parti je parle de toutes les mairies mais comme je suis à l'ouest je commence d'abord à l'ouest où je suis avec le maire Aliou Sow bi fa nekk mais ci comme moom dafa naan moom ci jikkoom peut-être que du ñu bett ndax am na loo xam te ne xëy na duñ ko wax ci nit parce que ça relève de sa vie privée mais ku ko xam defe naa yenn yi du la bett si mais li am solo mooy fi ñu toll su engagé un processus boo xam te ni le président et le parti ñoo instruit à ce que ñu réaménager première chose bi ñu njëkk a wax mooy réaménage pour installer des commissions électoraux non on dit des commissions politiques parce qu'il y a une stratégie qui a été définie pour atteindre notre objectif politique dafa am stratégie bu ñu définiroon pour atteindre suñu objectif politique te ci loolu ñu ci namm nag am na si loo xamante ni doxalin bi bokkul parce que du commission électorale commission politique la loolu nag xëy na su stratégie yooyu duñ ko wax ci biti mais li muy doxale di xool ñi muy àndal di xool ñi muy convoqué di xool ñi muy seppi di dem ci yenn commission yoo xam te ne da ngay jël doom def ko responsable ba jeune jël yaay ja def ko responsable des femmes mel ni kon dañoo manqué ay responsables dans ces localités parce que nag li ñu sukkandiku woon ci li leen président jox comme instruction mooy que ni njaayum carte ba secteurs yi ñu installé woon nañu sukkandiku ci secteur yooyu alors que mosuñoo installé ay secteurs yu fiable moo tax ñu confronté à ces problème tey nag di xool ñi ñuy ak ñu njul seppi et loolu dafa ma ci amoon xeex bu ma ci doon xeex waxoon leen leen secteurs yi nu ñu doon installé baaxul mu poussé ñu ba tey ñu jël dernier de la classe dugal teg leen ci maire yi équipe yi gën a bon ci maire yi Thiès am équipe yi la donc loolu il faut que mu doon loo xam te ne dañ koy càmbaraat parce que parti bi mu ngi ciy commencé di nax saay liggéeyu parti bi mu ngi ciy gën a dellu gannaaw te tey fii Idrissa toll Sénégal yi yëpp commencé di ko jox bopp Sénégal yi yëpp commencé di yaakaar ni moom mooy seen porte seen espoir kon donc base am politique waruñoo def loo xamante ni nit ñi dinañ ñu mere wala ñu mere Idrissa te Idrissa yëgul tinul te li ñu koy mere yëpp ci ay nit lay jóge ñoo xam te moom moo leen confier seen yooyu responsabilité ci loolu nag si lañuy jël ay taxawaay pour alerter le parti parce que fi ñu toll mooy rassembler toutes les forces dajale mbooloom dem ala dem seeti ji askan yi du nag maire yi dañ leen dénk ñoo war a faj soxla yëpp parce que mënuñu ko mais li askan yu soxla ñu xool waslu ci àq li ñu mën yëpp parce que loolu la ñuy xaar ci ñun ndax ñoom dañoo won gannaaw nguur yëpp nguur ñi xañ Cees lépp ndax Idrissa Seck kon donc su fi président Idrissa jëlee teg leen fi kon donc ñun war nañoo mën a doon jaamu askan wi jàppale leen ci li nga xam te ne fa la ñu mën ba pare nag teg lépp nag ci dëkk parce que loo mënul yi da nga naan mënuma ko mais nag nekk fi loo xamante ni sa bopp moo la ñor fexe noo jéem a régler dama naan rattraper sa passé lijjanti sa confort ak sa luxe fàtte askan wi bu ñu waxee nag nga yor say kàddu ay consort loolu ñun duñ ko seetaan parce que bëgguñu nag askan wi àgg ak Idrissa foo xam te nañ ko wan gannaaw ak foo xam te ne dinañ mere Idrissa sekk ndax ay nit ñoo xamante ni xëy na ñun lim ñu jaraloon sacrifice lim ñu jaraloon jaralul leen ko mais yàlla mooy joxe yàlla jox leen kon donc nañ jël mbir yi teg ko ci yoon ci loolu mooy li nga xam ne ñun ci la ñuy dox ci la ñuy wax et loolu moom sabab ndaje mi ni nag lancé appel président Idrissa Seck. xamul ko ni ko liñ koy jox ci ay compte bu fekkee am na wala ñii liñ koy wax dara teguwu ci ci dëkk et parti bi mu ngi gën a naax saay nit ñaa ngi mer di bàyyi parce que de lii fi am nii ñu bari bi ñu demee jàppoon nañ ne dafay jeex pratique yooyu ñoo commencé waat parti bi mu ngi gën a naax saay di gën a delluwaat gannaaw de waxu defuñu ko nag dénoncé pour ni dañuy xeex wala dañuy xuloo wala dañuy organiser ay clan clan wuñu xeexuñu xuloowuñu mais dañoo gis ni lii mooy réalité bi fi am te bëgguñu élection yi ñëw mu doon mbetteel suñu kon donc dañuy teel a jël suñuy matukaay pour que lépp ñu tegaat ko ci yoon ci loolu nag ci lay lancé alerte kii parti bi ñu jël seeni ay matukaay suñ ko deful nag politique la fii à la base ñun on va dinañu organiser wu pour jàmmaarloo ak ñeen parce que lii duñ ko seetaan muy dem parce que Thiès askan wi ñëpp a ngi mel parti bi gën a naax saay seen yoon nekkul ci loolu yëpp loolu nag moo sabab ndaje mi xuloowuñu xeexuñu awma ci problème personnel ak kenn loolu mooy en guise kii daal sa li ñaan di tënk suñu waxtaanu tey dafa naa ni lépp ci loolu la nekk donc nag di soumettre nag si yenn question yi bu ko nit ñi amee pour que ñu jëm ñu ko seetee li ma la wax dafa am benn mbir bu ci am dama ni compte yu ñuy defal Idrissa par rapport ak loolu lu ci bari du ci dëkk parce que mën na maa waat ni parce que commerçant yi Idrissa avant muy voyage yi waxoon na dina leen gis à son retour parce que dama ko waxoon ni ko déglul commerçant yi parce que bëgg nañ laa gis ndax problème yi il faut ko ñoom ñu waxal la ko seen bopp mu ñëw mu rencontrer leen fii fekk mu jóge voyage di dem gis leen ñuy ñëw mu wëlbati ko dajeek ñoom appen leen dinañ gisante xëy na nag retourné gul pour que ndaje boobu am mais li nga xam ne moo am solo ma wax ko muy commerçant marché Thiès yi ñoom ñëpp lu nekk daj nañ ko pour Idriss Seck kon bu fi Idrissa tegee nit warul def rapport de force ak ñoom wala di leen imposer une police parce que loo gis ci waxtaan la nekk mais pour lan nga accroché wu ci benn privé simplement bàyyi mbooloo boo xamante ni organiser une fois accompagner ñu pendant des années nga bëgg ni benn privé bi moom ngay bayal wàllam pour que mu am dara ci tabaski wala korite at mu jot mu jaral la lu nekk am na lu ci nekk nañ ko wax am na lu ñuy nekk ci biir il faut qu'il arrête les deals arrêter di enrichir sur les dos des populations parce que defuñu leen joxuñu leen mairie ñu am statut maire mu war leen jariñ lu nekk tegal leen un budget defal leen lépp ba pare ñu bëgg a topp askan bi leen parce que dafa am problème yu bari ci am ci affaire mu commerçant yi première chose bi nga xam te ne moom lañ njëkk opposé parce que y avait un programme boo xam te ne fii lañ ko fekkoon di sa réménager marché bi defaraat ko sa centre commercial bu bees bi nekk ci wet gi sa Seck moo ko defaraatoon état bi bloqué travaux yi depuis boobu ba tey nanguwul àgg ñu amoon benn programme bu ñu definiiroon muy marché saam dañ koy def parking dégager marché bi yëpp ñëpp dem nekk fa taala si la ñëw xëy rek benn bisam ni day kii ak marché saam daaneel ko li njëkk a wu mooy bala ngaa daaneel marché saam boo jógee mairie ville avant nga yàgg marché saam am nga marché boo njëkk a jot marché boobu moo gën a illégal marché saam neewuñu bul dindi marché saam mais boo ko dindee bu fa bàyyi beneen marché bi yépp nga war a dindi mais loolu ñuy def sur de sur la base de calcul et de manipulation muy indi toujours des problème parce que ku nekk yaa ngi xool lan moo cay sa intérêt et que aujourd'hui suñu seule préoccupation suñu seule ligne directrice bi ñu Idrissa tracé mooy fexe ni ñuy satisfaire askan wi seen ay soxla mais nag nii ñu ko bëgg a doxalee du dëgg du yoon teguñu ko fenn et que nag man ci sam bopp ci ñuy ànd ak ñoom ci combat boobu et dinaa informer Idrissa de la réalité parce que lii ñuy def xam nga ci biir dañuy wax politique la xam nga tey boo demee woo Idrissa di ko wax nangam dañuy mel da ngay jaxase wala da boole ay nit wala nag mais li ñuy def jaaduwul du dëgg du yoon parce que mënoo jël benn nit kese ñii nekk fii di fay patente pendant un an événement tabaski ñëpp xam nañ tabaski Korité la di jaay di jënd. donc chiffre d'affaires bi ñu ci am pour mën a solde li nga taxe yi ñuy fay maire yi mais doo ko jël xañ leen ko pour benn nit boo xam te ne boobu ba boobu lay fay taxe pour def ci investir ci gagné ci lu bari yóbbu ko këram mais yóbbu ko këram da xëy na am na lu ñuy seq ci suuf parce que defuñu lu ñu amul intérêt lii intéressé wu leen askan wi intéressé wu leen et man li ma gëm mooy ñoom dañoo gëm ni Idrissa du doon président moo tax ku ci nekk di lijjanti sa bopp. parce que ci loolu la ñu ku ci nekk tey jii yaa ngi lijjanti kër gooy tabax oto yooyu jënd et consort c'est seulement ça leur principale préoccupation